mooy Bassirou Diomaye Diakhar fay kii moo nekk jamono ji juróomeelu njiitum réewum Sénégal Bassirou le 25 mars 1980 la juddu ca Njagañaaw ci région bu Thiès ci famille bu sociale ñu yar ko ci dund dundinu wa maanaam sociabilité séddoo ak bokk am njàngam moo ngi koy doore ca mission catholique locale ba ca Njagañaaw laata muy dem ca sem ba nga xam ni maamam ju ñuy woowee Makor fay lañu ko duppee ci noonu noonu la jubali mbuur wéyal fa am njàngam ci lii Demba Diop ba am fa baccalauréat ci atum 2000 léegi direction université Cheikh Anta ci daara ju kawe jii la amee maitrise en droit ca faculté des sciences juridiques et politiques ca atum 2004 la woon yàggul ñetti at moo ci topp 2007 mu jàll concours ENA di école nationale d'administration defoon nay it concours de la magistrature ba jàll première phase bi mu dese ko beneen waaye Basiru ne du ko def lu tax mu ni comme jàll na ENA bi amatul lu muy prouver na ko bàyyi kon ñi ko jàllul ñu tenter seen sens ci magistrature bi loolu mën na firndeel ak doylu ci jëmm ji bu nu sukkandikoo ci yenn seede yi parcours am boobu ci wàllum njàng moo ko yóbbee mu nekk inspecteur des domaines te direction générale des impôts et domaines fii la xamante ak Ousmane Sonko engagement am ci wàllu syndicalisme itam li koy firndeel bokk na ci taxawaay bii mu amoon ci syndicat des impôts et domaines ba secrétaire général ci wàllum politique Bassirou moo ngi ci engagé wu ci atum 2014 bi nga xamee ni ñoo ngi doon samp parti bii di Pastef mu àndoon ci ak Ousmane Sonko mi ko jiite woon Bassirou yore woon lépp lu organisation interne bu parti bi laata ñu koy def secrétaire général ak njiite cadre yi ca octobre 2022 élection locale yu 23 janvier 2022 fekk yeewi askan wi defoon ko candidat ca njagañaaw gëmu cosaano waaye jàllul ndax Tening Sène bu app APR moo ko fa gañe woon benn at lañu ci teg ñu jàpp Bassirou Diomaye Faye tëj ci kaso bi di ko toppee wàllum diffusion de fausses nouvelles outrage en magistrat et diffamation envers un corps constitué doon ko tuumaal ci ay critiques yu mu defoon ci publication Facebook jëmale ko ci magistrat yi jëloon dogal juge Ousmane Sonko en appel ci procès diffamation bi doxoon ci digganteem ak Mame novembre 2023 fekk booba jiixi jaaxa yu bari am ci candidature Sonko bi taxoon loolu suuf Pastef mujjee jël Basiiru Jomaay Jaxaar Fay def ko candidat ci élection présidentielle bi fekk booba ma nga ca Cap Manuel le 20 janvier conseil constitutionnel validé candidature bi le 15 mars 2024 Basiiru Jomaay Fay ak Ousmane Sonko génn ci kaso bi askan wi teeru leen teertu gu rëy ci guddi gi ñu génnee ca ëllëg sa mu xëy songu réew mi sumbu campagne bi moom ak coalition Jomaay président ba le mars 2024 ci élection présidentielle bi ñépp doon xaar Sénégal yi tànn ko moom basiiru Diomaye Diakhar Faye ngir mu nekk cinquième président de la république du Sénégal bi gën a féete ndaw ak ñeent fukki at ak ñeent war a wuutu président Macky Sall mi fi nekkoon 2012 ba suñu jamonoy tey ba noppi am ndam kon ci kaw 19 candidats yi mu doon jonganteel Bassirou bu weesoo tekk geeg dal gi ñu bari nee nan ku dëggu la ci waxin ak ci jëfin ay fanam yu njëkk ci ndakaaru nag metti woon na lool waaye mu ñafe ko ba agsi fii lii mën a jàngale ni juddoo dëkk ba jóge dëkk ba ñëw dëkk bii di ndakaaru ba mujjee jiite dëkk bi di réewum Sénégal mën na nekk Bassirou Diomaye Diakhar Faye cinquième président de la République